maître Massokhna kan ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. maa ngi FM di fàttali ne ñoo ngi dalal ki jiite SOS consommateur doon tamit avocat euh, fii ci barreau bu Ndakaaru tey seen association euh, de défense des consommateurs euh, daal di bind benn bataaxal muy communiqué di ciy wax moom na mu jàngate lii di yokkute ci yenn prix ci garab yi ñu nemmeeku fii gannaaw seen investigation mën nañoo xam lan ngeen gis ne moo waral garab yi yokku. waaw euh, bii ñu jékki-jékki yëg ne garab yi yokk na ci lu bare. Mhm. plus de cent pour cent parfois plus de deux cent pour cent. Mhm. te euh, ñu interpeller ñu ci ñun dañu commencé jokkoo ak autorité yépp parce que bala ñuy wax ci problème il faut ñu xam lan moo xew. Mhm. donc wax nañ ci ak autorité yépp aussi bien du ministère du commerce. du ministère de la Santé, direction de la pharmacie et du médicament, douane, euh, yi hygiène bopp et cetera. Mhm. bon bi ñu euh, defee enquête boobu daal ba pare gis nañu ñuy wax grossiste répartiteur maanaam ñi nga xam ñooy jëlee garab yi bitim réew. di ko indi di ko jaay pharmaciens yi pour pharmaciens yi jaay ñu ko ñoom itam. Mhm. ñooñu ñoo jékki-jékki rek yokk garab yi bañ ko yokkee nag amuñu droit yokk mhm. parce que yokk garab. fixé prix garab moo xam euh, dañ koy yokk wala dañ koy wàññi loolu ministère de la santé direction de la pharmacie et du médicament rek ñoo am pouvoiru fixé prix wu garab mm-hmm. donc ñoom amuñu droit fixé loolu ñoom nag li ñu wax nee nañu ay taxe la yoo xam ne bi douane def leen ko teg waaw loo xam ne nii genre ay redressement la mm-hmm. waaye mais douane bu leen tegee ay taxe aussi ñoom amuñu droit répercuter ko comme amuñu droit fixer prix ñoom li ñu war a def mooy saisir autorité yi saisir ministère de la santé pour que ñoom ñu xool ndax dañu war a yokk njëg yi wala waruñu ko yokk mais ñoom en aucun cas ñoom amuñu droit amuñu droit sax wàññi njëgu médicament waxamtuma la di ko yokk donc donc loolu leer na ñoom la te ñun dañu demander ñu annuler yokk boobu mm-hmm. xam nañ nag pharmaciens yi ñu ngi ciy xeex parce que pharmaciens yi ñoom aussi arrangé wul askan wi mais arrangé wu leen mm. donc ñoom itam ñu ngi ciy xeex defe naa ni sax bu ñu yéexee rek ñu delloo garab yi grossistes yi mm-hmm. mais loolu dafay créer ay rupture yoo xam ni du baax ci maladie parce que garab yooyu am na ay vitamines mais am na ay garab yoo xam ni dañu am li ñuy wax autorisation de mise sur le marché mm-hmm. donc AMM la ñu am boo xam fixé na njëg ba déjà donc ñoom en aucun cas amuñu droit modifier njëg boobu. Mhm. waaw mais loolu bu amee rupture ci garab yooyu loo xam ne da nga ko daan jënd mille francs ñu la koy deux mille wala trois mille mhm. kooku maladie day gën a sonal maladie daf leen di gën a gaañ te bu rupture amee parce que pharmacien yi nag moo ñu jël garab yu seere noonu euh, di ko jox nit ñi mhm. euh, bu boobaa mën na lor ay malade yu bare moo tax ñu ne il faut ñu gaawantu annuler mesure boobu ba pare nag ñu war a toog waxtaan ñu toog waxtaan pour xool naka la ñuy régler problème mu classification bi nga xam ne moo waral loolu. Mhm. justement maître ci li nga xam ne mooy yokkute boobu bañ ko ba mu amee wala sax bañ ko annoncé ba pare euh, pharmacien privé yi lañ ci dégg dégguñu ci euh, lii di ministère dégguñu ci lii di direction de la pharmacie bi nga cité tout à ak yen ñi SOS euh, consommateur ak pharmacien privé yi donc yéen a ci jot a jëkk yëkkati seen seen i kàddu loolu nan lañ ko mën a jàngatee. waaw ñun dañu enquête ba pare soog a mën a wax mais bu fekkee autorités yi la xam nga autorités yi souvent euh, du ñu nangoo wax yenn wax yi publiquement mais ñu ngi jëf quand ñu gis nañ ni muy direction de la pharmacie. Hmm. muy euh, autorités yi ci des. muy ordre des pharmaciens yooyu itam wax nañu. Hmm. muy douane muy ministère du commerce ñoom ñëpp ñu ngi ciy wax. te am nañ yaakaar ni problème bi dana am solution rapidement. parce que ñoom ñëpp wax dëgg yàlla euh, ñu ngi jokkoog ñoom ñu ngi ci wax ñoom itam mm-hmm. même bu ñu waxul ci rajo yi aussi ñu ngi wax ci problème bi te loolu moo am solo mm-hmm. donc euh, am nañ yaakaar ni solution dana am ci lu néew ci temps bu néew parce que comme euh, autorités yëpp ñu ngi ciy wax yëf yi waxtaan la ba trouver solution entre les autorités ak ñi nga xam ne ñoo ñoo doon bëgg a yokk te amuñu droit yokk donc loolu il faut ñu wax ko ba mu leer mm-hmm. tey jii industrie euh, euh, donc pharmaceutique dañ ko structuré euh, donc dafa am nu muy jaar ñu topp ca mais tey grossistes yi mu mel ni li ñu def ñoom dañ cee taxaw ñu jël dogal gi ni mel sans pour autant ñu jaar ci yoon. waaw loolu lañ def moo tax seen position du neex a défendre parce que ñoom li ñu def amuñu droit def ko. mais est-ce que lii amul benn anarchie gi mu wone déjà ci li nga xam ne dañ ko structuré ba pare euh, ñoom jaaruñu ci structuration. waaw ñoom day xëy na dañuy tuub rek def li ñuy def parce que wax dëgg yàlla euh, règle yi leer na ñoom amuñu droit yokk amuñu droit wàññi ministère bi nga xam ne moom mooy règle ko yore mm-hmm. muy ministère de la santé muy direction la pharmacie et du médicament mm-hmm. ñoom rek la yoon may ñuy fixer ay prix médicament maintenant bu fekkee ni grossiste yi dañu jël lu mel ni complément alimentaire euh, xëy na euh, tudde ko garab ba douane bi ci teg ay taxes ak yooyu uh-huh. loolu dañu war a toog wax ko ba clarifier situation bi ba uh-huh. mais amuñu droit tëb rek daal di yokk wala di wàññi ay jëf loolu erreur la ñu def ñoom te yaakaar naa ñoom danañ ko reconnaître que def ñu erreur uh-huh. amuñu droit en aucun cas di fixer ay njëg di wala ñuy wàññi ay njëg waaw. ci yaakaar googu ndax yéen dangeen di déglu xaar ñoom ñu jël dogal wala bu ngeen leen dégloo euh, ci benn diir di ngeen am nu ngeen doxalee ci bii lépp dossier. ah oui comme euh, pharmacien jóg nañu te itam xam naa ni état bi artu na leen ah, mhm. yaakaar nañ ni solution dana am parce que ñu ngi waxtaan. xam nañ ni direction de la pharmacie et du médicament ñu ngi wax ak ñoom. Mhm. ñu ngi wax ak pharmacien ñu ngi wax ak Euh, itam euh, xam nañ ni xëy na ministère du commerce aussi ñu ngi ciy wax mais en tout état de cause daal ñun yaakaar nañ ñu fii ay fan ñoom danañu xoolaat dañu def ñu dindi ko parce que jaaduwul. Mhm. waaw ñun foofu lañ leen di rek. waaw ngay avocat ci barreau bu Ndakaaru tey actualité ñu gis euh, muy euh, rëccub euh, Boy Djiné tey ji coow li ci ànd ak sorti médiatique am yi tey boobule détenu lan la yoon mën a teg ci ndodom waaw dossier boobu mënuma ci wax parce que bokkuma ci dossier bi mm-hmm. te avocat bu kii bu topp bu sàmm règle yi nga xam ne moo koy régir du wax ci dossier bu xam bokkul ci dossier bi segam boo bokkee ci dossier sax euh, lañ na sa métier di tere nga wax yenn wax yoo xam te boo ci bokkul boo ci bokkul amoo doo wax ci te man euh, maa ngi ciy bëgg a yàgg ñemewu ma violé yenn règle yi mhm. donc loolu déjà benn la d'accord euh, bi ci tegu mooy problème yu mel noonu ñi ci nekk rek ñoo ci mën a wax. waaye moom li mu posé comme euh, comme euh, li nga xam ne moo waral euh, mu def li ni mel mooy problème longue détention yi yàgg ci kaso bi te kenn du la jugé tey mu doon benn problème bi nga xam ne saa su nekk day dellu si di dellu si waat maître mais quand en tant que qu'avocat mën nga ñoo wax ci mbir moomu tey lu ko waral selon vous. waaw loolu dañ koy naqarlu bu baax a baax a baax te kon muy constitution bi muy déclaration des droits de l'homme yëpp dañu reconnaître que ni nit ki euh, buñ ko jàppee dañ ko war a atte ci diir bu normal mm-hmm. donc affaire longue détention bi comme ni nga ko waxee dañ koy wax di ko wax di ko waxaat mm-hmm. li koy saafara nag mooy état bi état bi moo war a euh, fexe bokk ñu jàpp ñu atte la ci délai yu raisonnable te loolu li koy mën joxe mooy euh, jumtukaay yu doy jumtukaay yi mooy recruter ay magistrats yu doy ay greffiers yu doy et cetera il faut personnel bi nga xam ñu war a traiter dossiers yi ñu doy il faut matériel bi doy il faut moyens yu doy mais bu ma jëlee benn exemple benn juge d'instruction boo xam ne bi dafa am quatre cents dossiers ci cabinet mhm. ah di jàng dossiers yi war ci poser ay actes te des fois même balay pare ci euh, euh, jàng quatre cents dossiers yooyu ñu affecté ko feneen indi beneen ku bees kooku bëgg a war a commencé waat à zéro ainsi de suite loolu benn exemple la beneen bi mooy suñu audience yi da ngay gis audience correctionnelle ay deux cent dossiers ay trois cent dossiers juge bu yore loolu mais ma dafa doy waar donc il faut ñu yokk magistrat yi yokk chambre yi yokk moyens yi pour que nit ñi ñu mën leen atte ci ay délais yu raisonnable moom mooy indi longue détention yi xam ne Euh, dafay tax ñu def ay actes de désespoir et di def grève de la faim ñii di jéem a évader ainsi de suite mais les gens ont le droit ñu boo ko jàppee xañ ko liberté war nga ko àtte ci délai yu raisonnable pour ñu xam ndax parce que tant que jugé wuñ ko ba pare mhm. il est présumé innocent waaw innocent nag doo ko bàyyi ci kaso bi lu yàgg loo xam ni yàggaay bi jaaduwul te attewuloo ko xam ndax da koy bàyyi wal ndax da koy tëj mhm. mu amoon leneen tamit li nga xam ne fësoon na fi lool muy benn détenu bi ñu jàpp ne wala bi ñu fësal ci xibaar yi ne dafa bénéficier wu ci benn grâce te pourtant turam nekkuloon euh, ci euh, liste euh, bénéficiaires yi loolu tamit noo ko jàngatee. waaw loolu daal xam naa ni accident la rek parce que yooyu du faral di am il est vrai que affaire grâce yi ak affaire dossier préparation dossier grâce yi il faut ñu gën ci liggéey gën ci spécialiser ay nit gën ci def ay moyens. pour que euh, personnel bi traité yooyu ñu mën a doy parce que dossier yi dafa bare donc kooku am na lu ñu ci war liggéey loo xam ne pour améliorer traitement bi mais ay affaire turu identité turu détenu bi wala kii turam na fi ainsi de suite yooyu généralement du du faral di am problème mu identité identification wu ay détenu yooyu yooyu généralement du faral di am. Hmm. donc bu amee dañuy yaakaar ni accident la exceptionnellement la am. voilà. Mm, d'accord maître Massokhna Kane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf maa ngi leen di sant aussi di leen euh, remercier ci invitation bi merci beaucoup maître.